dégg naa Augustin Senghor ak fédération sénégalaise bi de football naan ay wéy bu kenn jaay mayo ñoom ñoo yor exclusivité bi <laughs> waaye reetaan leen loolu waaye sama gars yi <laughs> ku réewul loolu amoo bëñ <laughs> Augustin Senghor nee na Sénégal bu benn commerçant jaay mayoo waaye réew ma mooy réew mu doomu xanaa Fata Ndiaye ñoom Ablaye Sow violeur yi sàcc yi nee nañ bu kenn jaay mayo Sénégal <laughs> gars nag mujj nañ ñoom moom nag de gars yi nag napp nañ ñu nag de barki Seydina billaahi wallaahi gars yi napp nañ ñu nag napp nañ ñu quoi napp nañ ñu trop. ñii napp nañ ñu de waaye reetaan leen lii waaye ku reewul lii amoo bëñ waxi mais Augustin Senghor yow koo yab Augustin Senghor yow koo yab yow bu toogee ndey ci fédération ba léegi musul am audit nga sacc fa ay milliards nekk président fédération bu nga fa toogee ba léegi laa la wax sàcc fa ay milliards musul am audit suñu audité fédération bi jamais sàcc suñuy milliards ñu war a Dakar sa maam defaguñ ko yow ay Ablaye Sow sàcc suñuy milliards tëddee caga ñu war a Dakar seen maam defuñu ko ngeen amu sax mayo yu baax piment moomu leen mayo ay piment di defar ay mayo di ñu jox suñu commerçant yi ngeen ne leen bu ñu bu ñu bu ñu jaay mayo quoi <laughs> suñu yi di liggéey di ñu dundal. di jox lu ñu lekk lu ñu naan di ci liggéey di dem di wuti ay mayo di ñu ko jox ñuy lekk ñu sol mayo ñu ne nga ne ñoon kenn bu mu jaay ah d'accord kon daal yéen da ngeen di yéen rek yéen naan ci Evian yi ñun waruñu naan robinet bu ñuy naanee sax nga xam ne setul sax ñun dañ koy arrêté quoi. Augustin man awma ma xaalisu 15000 yi may jëndee mayo di enrichir ay piment man piment du ma du sama ndey du sama baay yoruma xolal mayo yoruma loolu. bul ma fontoo bu ma amee mille francs kenn dem Colobane wala Sandaga ñu jaay ma fa maye ma sol ko man aw ma 15000 francs yu may financé mais je préfère benn 5000 bu may jox sama commerçant yi que 15000 bu may jox Puma. je préfère benn 3000 bu may jox euh, euh, lu mu tuddati sama commerçant yi nekk Colobane Sandaga que dem di jël benn mille di ko jox Puma bu ma fontoo imbécile sàcc suñuy milliards xaj yi day ñu war leen auditer auditer wuñ leen ngeen naan da ngeen di tere yéen a moom nday sénégalais. booy wax lu ñuy jaay ak lu ñu war a jaay loolu ban dëkk la am 12 ans sans audit ñu sàcc ay milliards mais biir Barcelone da nga fay dem jënd mayo ci mbedd yi ci kaw tali bi man jën mayo yu may sol nii ci ci tali laa ko jëndee Barcelone mayo yu may sol Valencia ci talibi laa ko jënde est-ce que Real de Madrid am nañ fit naan ay Madrid bu kenn jaay mayo waaye mais yéen eh, mais yéen yéen xamu leen qu'est-ce mais Augustin yéen jabaate ngeen yéen nag yéen yéen moom ngeen ñu ah yéen kenn waxu leen qu'est-ce qu'il a ah. imbécile yow ak Ablaye Seydou su imbé xaj caga ji doome xaj yi man maa leen saaga baal leen maa ngi jégalu ñe doome xaram jaay leen nday mayo yi laa la wax jaay leen mayo yi ñun 3000 lañ am 2000 lañ am 2500 lañ am jaay leen mayo yi laa la wax amul benn loi bu ne kenn du fi yaay mayo kenn su ko voté assemblée national kenn du fi jaay mayo dama ne benn loi interdire jaay leen mayo ñun ñu jënd ñun 3000 2000 la ñu yor ñun suñu bàyyi sàccul alal 2000 la ñu fi bàyyi ak 3000 ñun suñu bàyyi sàccul alal ni Augustin Senghor nu mu def gore ak lu mu def fédération ba ñun suñu bàyyi du Ablaye Seydou bu sàcc ay milliards boo xam ne doomam mun na leen jëndal ay mayo ñun suñu bàyyi ñun defal gore ay ay ñu déñ lañ ay mille lañ am 3000. te dañu bëgg a sol maillot allez faire foutre ngeen naan yee yeeg yéen am leen fédération boo xam ni ngunu ginaar la xool leen fédération sénégalaise bi ngunu ginaar en en face en face nu mu foire kii boobu ngeen fa gisoon ngunu ginaar la booy sax mos nañ dem taal ko ngunu ginaar la benn espèce bu espèce bu feebar la wow kongu mel ni Seydou Sow wow kongu ba def nii gat amul ci biir ñaari bureau fa ne ak deux ordinateurs ñoom sax duñ fa taxawaalu amuñu benn boutique équipe nationale amul boutique équipe nationale amul boutique bu ñuy boutique bu ngand boo xam ne mi ngi sandaga wala dara boo xam ne ay ay genre ay genre stand yu ngand yi ñuy jaay ñu yem nañ ñu nag mais gars yi nag nañ ñu gis nga bus bu ñuy màbb seen kaw noo dina leen coûter cher. dañoo dem ba napp ñu quoi napp ñu napp ñu dañuy yeewu rek seen taari tàng rek ñu dugg ci télé bi rek ah, commencé di ñu di ñu menacé à partir d'aujourd'hui mel ni ku yore say mbaam wala ku yore say xar mais ñun ay nit lañ il faut ngeen jox ñu cër yéen daal di ngeen di toog ba seen tuuni tàng rek ngeen génn dem ci benn média RFM TFM taw bon à partir d'aujourd'hui mel ni ku wax ay xar mel ni ñun du nit. waaye bis ni que tey bon on interdit strictement ku jaay ay mayoo ci mbedd mi te seen dara officiel amuñu boutique officielle amuñu dara nii ngeen napp ñu nii rek quoi jàpp nañu daal ay xar lañ ñu amul benn kàddu amuñu benn xel waruñu wax dara ñun daal da ngeen di yeewu seen tuuni tàng rek ngeen wér ci benn télé rek toog. 17 millions di leen déglu ngeen toog nii seen ak seen taat di tàng way yurul la tuuti way bon à partir d'aujourd'hui on interdit strictement euh, kenn ku jaay mayo ci mbedd yi ban loi ko wax ñu ne noo amul loi amul règlement ñun ñooy seen bàyyi ku wax ñu taxaar sa maam bu kenn jaay mayo yéen a ñu moom yéen ñun ñooy jaay ndaye mayo yi fii mbedd bi gars yi di ko jënd di ko sol ñun 2000 lañ am fëgg jaay la ñuy sol ba léegi suñu bàyyi sàccul alalu Sénégal suñu bàyyi sàccul alalu Sénégal suñu yaay sàccul alalu Sénégal yéen ay sàcc ngeen imbécile yi sàcckat yi détourner l' argent fédération kenn audité wu leen ngeen taxaw di ñu wax naan ay milliards yi ngeen détourné ay wuñ jaay. ma ne commerçant yi jaay leen ba mu neex saf kaani benn loi interdit lu leen ko benn règlement jaay leen jaay leen ba muy neex c' est vrai y' a un très grand marché derrière ces maillots là ñoom ñoo bëgg indi affaire yi sax jaay ko ñoom. ñoom seen bopp ñooy dem jël ko ñoom indiwaat ko jaay ko xanaa xamoo gars yi duñ jaay original de ñoom ñooy ñooy interdit suñu commerçant yi ñoom dem Dubaï wala dem Chine indi maye yi ñoom jaay ko dañuy jël marché bi jox ko Seydou saw ne ko Seydou Sow yaa gagné marché bi faux faux mayo yi faux faux yi yaa gagné marché 3000 yi ma mayo 3000 mayo 4000 Seydou Sow ñëw Seydou Sow dem jël ay milliards dem jënd jël mayo ñu mayo ñuy interdit booy dugal ko ci marché yi di ko jaay. ay marché la yoo xam ne ñoom seen biir bi ñu ñun ñu naan ñoom ñu jël ko di ko seddoo seen biir maillot yooyu jaay leen ñoom dañ leen bëgg a arrêté pour jël maillot yooyu ñoom jënd ko dugal ko ci marché bi ñoom ci seen bopp jënd dem jëm Chine jënd ji wala dem Turquie jënd ji ñëw defar maillot yooyu jaay dañu ko jaay jaay leen jaay leen maa ngi dem sama yoon xool ba ngeen tere fi kenn jaay maillot mu noq seen maam fu yi imbécile yi xaj yi dey sàcc yi escroc yi sàcc sëriñtu sacrifice summi suñu siste yi di leen saax-saaxe mooy seen defis sàcc sacrifice sëriñtu summi suñu siste yi wala suñu soxna yi di leen saax-saaxe ay saax-saaxe yu sadik